ñoo ko organisé ñaari xale war cee laale demaloon naa leen fële ca Mar Fafaxo jëlal leen xale bi nga xamante ne mooy Calme Ndour open press am mu yëngal wane boppam xas adversaire am wax ci moom lu baree baree baree bare adversaire am mooy Eumeu seen Junior ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñëweel waxtaan bi mbër maa lay nuyu baax di la siyaar. waaw maa di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim mm-hmm. bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur hmm. sant sama sëriñ suñu Modou Abdoulaye Fall Ndao ñaan yàlla yokki leeram te taas ci barkeem di siyaar aussi sama sëriñ suñu Cheikh Bintou Fall hmm. maa ngi koy siyaar bu baax di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal taxawaayam amiin amiin di nuyu kuluxum di nuyu suma mbokku Baye Fall yëpp di waa kër gi nga ma fekk ma leen di ne dal leen ak hmm. xam nga borom kër gi maa koy siyaar baax Père Ousmane Kane ak viekan bi ma toogal dooma xam ni suma lépp la suma goro la suma lépp la mm-hmm. di nuyu suma famille yëpp yëpp yëpp aussi mm-hmm. di nuyu aussi tamit suma xarit sama jigéen soxna may faal mm-hmm. maa ngi koy siyaar ak borom këram Sidi Diop di ko wax ne yàlla ñu yàlla suñu borom defal tawfeex ba ñuy dem ba màggal gi ñun sax duñu am fu ñu fu toog bay tëdd ci barke Serigne Fall waaw euh, fi mu toll nii sa combat yaag ki nga xamante ni mooy Calme dañ ko jàppoon dem bañ ne suba la combat bi ci guddi gi yaakaar naa ci suba si la ko mbër yu bari yëg combat bi amatul ñu jàppaat date bi loolu du la jural ay jiixi jaaxa wala ni nga waroon jëlee komba bi doo ko jëlee noonu. non combat bi bañ ko jàppee. Hmm. lañ ci ne. añëwee nañ ko loolu yàlla la teewul ñu bañ cee ne waaye tamit ñu def suñu activité comme bëri ñu ngi ko doon defee bëri. Hmm. ci làmb ji na ci suñu activité. Hmm. làmb ji amul lu ñu jaralul ba tey. Hmm. ba tey li ma la waxoon loolu lay wax parce que Serap Fall am na combat man amu ci loolu ay sigi saag. combat bi bett la ni nga ko jàppee le 10 octobre bi. Kambal Dóor pare naa yow. ni pare wala li ma la mën a xamal mooy. promoteur bi jàpp na un mois quinze jours. incha hmm. allah loolu promoteur bi jàpp. Hmm. un mois quinze jours la jàpp làmb ji. waaw loolu nag xaj na ci li ma la mën a xamal daal mooy xayma juróom bañ a bu xeet rek. ngeen bu xeet di nuyu aussi waa di nuyu aussi waa waa waa waa FIS ak waa FIT. protection. Hmm. parce que ñu ngi doon def formation bu doy waar xam nga ñoom tamit loolu xanaa nañu bu baax ci suñu suñu préparation wax dëgg fa yàlla parce que gars doon daaloo ay onze kilomètres wala ñu ñëw ñu la ñu vingt cinq tours stade amitié wala vingt six tours soo paree ñu yëg loolu grandé xam nga ak ji la massacre massacre yi doy waar après avant force nag bi tàng bi bërëngo et tout ça xam nga yëg nañ ci lu bari daal ci suñu yaram di nuyu aussi waa école de morpholam yëpp yëpp yëpp. Mm. waaw di ñaanal ci am combat suñu borom defal leen ndam ma ci jiital guy gi comme mooy tëdd fil bi. Mm-hmm. waaw di ñaanal ñi amul combat suñu borom may leen combat may nuyu suma ay ñi may ñaanal te yàlla tax ñoom ñëpp ku ci mel ne Saa Daaru. Mm-hmm. ak Pape Mboro Baye Mass Mboro borom sàkket yi xam nga ak sëñ Malick Cissé sëñ Modou si maa ngi leen di siyaar bu baax Baye Mbaye daan naa koy bu wér a wér leen wax ne xam nga ñu jàpp rek ak Birame borom Jilaas Léwo borom Ñaaxar. di wax ne xam nga ñu ngi jégul waat bu baax a baax a waax di yeesu waat. <laughs> xam nga da ngay yow monsieur <laughs> Junior da woote wala da ngay da ngay nuyoo laa bëgg a xam. woote nuyoo la ñooñu di woo dama leen di nuyu. parce que li ma li ma jaaxal mooy calme dafa mel ni Adama mi sama caméraman bi la war a bëreel gisuma benn yoon foo xamante ne xalaat na ni Eumeu Sène Junior war na ma mën a sax xool ci bët ma xool ko ci bët nee na loolu moom sañoo ko. waaw ah, peut être loolu xam nga moom suñu borom da koo dimbalee moom moom day wax moom yàlla dogal day wax. a ah, nee na ni muy waxee noonu lay jëfee de. ah mais loolu dañuy bàyyi bis ba rek. nee na mosul daanu. man de daanu naa am na ñu daan waaye tamit ma xamal la ñaar samay victoire jegewul ay combat li ma am ci combat samay victoire moom jegewul moom sept victoire la sept combat man c'est onze victoire xam ko kooku jegewul. mag moom loolu loolu jegante nañ de. <laughs> jegante wu ñu jegante. onze victoire sept victoire. waaw ah lamb boole na leen. bu dee ci palmarès su lamb samay combat de. man seize combat laa am onze victoire cinq défaite dama ne la moom jegewuma jegewuma jegewuma. mais yéen eh? ñaar ku gën a xaat ku gën a wex. peut-être moom mun na nekk moom mais en tout cas li ma la mën a xamal daal mooy Cheikh Ibrahima xam ne am na combat. moom xam na ni am na combat. ah bu bu naa ko Eumeu Sène nee na ñeme ngaa jàkkaarloo. dégg nga Calme Ndour bu fekkee ne moom comme ni muy waxee ne man ma bàyyee wax moom am na combat. Hmm. Ah, man ma bàyyee wax am na combat. Hmm. yow mi tey jii nga bëgg ma ko fédéré dama naan la boo ko da ngay tudd fii ñu su ne parce na combat. moom nag nee na tuddul combat parce que moom fi muy jógee dafa sori day jël oto jël gaal jël saret te mobilisation boobu muy indi du fa nekk di leetoog yow di tardel boppam arbitre bu ne prix mu ne la tegal nga teg ñeme ko teg ci loxoy Kalmu Ndour. ko Sadio loolu. Kalmu li wax yëpp. jour arbitre de prix nga nga teg ko ci loxoom. loolu loolu moo ñeme woo ko. waaw moom fi muy jógee daa sori yàlla ñëw ci jàmm xam nga te delluwaat ci jàmm te lépp di jàmm te suñu borom defal ñu ndam ko suñu njóot ci barke Cheikh Rafa. man Jurbel laay jóge wala Géejawaay hmm. laay jóge wala Ginnaaw Raay laay jóge wala Mbuur laay jóge ñeenti ñooñu ñoo ma ñoo ma encadré suma yaay waa Mbuur la Jurbel laa juddoo sama papa waa Jurbel la hmm. Géejawaay laa yoroo Pikine def naa fa ay ay quelque temps sama kër maam Ginnaaw Raay hmm. ma leen di woo ñoom ñëpp ci bés bi wax ne nañ teel a ñëw teel a toog teel a am place comme dab Eumeu Sène junior kenn du jéppi non man léegi li ma bëgg a xam Eumeu Sène parce que combat bi ñu ci bari ci ñuy analyser làmb nee nañ xeex du ñàkk ci làmb ji te ñu ci bari nee nañ avantage xeex bi sa avantage bëre bi avantage Calme Ndour la Calme Ndour dalaa bëgg a woo ci xeex bëreeg yow yow ci lan nga koy woo. man moom comme daf rek ci lépp man moom. est-ce que di nga xeex ak moom. ci lépp est-ce yàlla suñu borom sàkk na loolu suma morom góor yàlla taxaw. mais notable est calme daf ne ñemewoo ko xool ci bët. arbitre ne prip mu ñëw stade yow ñemewoo ko xool man kuy léetoog moom ñemewoo ko jàkkaarloo moom mu la teel bi koro <laughs> bi waaw. loolu wax la yow ñemewoo ma ji fan la ma yegg fan la la yegg li ma la wax nit leneen calme suñu borom ko bindee noonu day wax. nay wax rek en tout cas jour làmb ji dinañ xam ne wax dëgg yàlla làmb ji ñax lañ tëgg. Hmm. waaw ñun làmb ji jaral nañ bëgg nañ ko te dinañ ci daj bu baax bis ba incha allah. combat bi bettu la benn yoon. bon ko nag làmb jàpp 15 jours avant bettu ko nag c'est-à-dire gars wax rek dañ moom amul lu ñuy teree dem liggéeyi di Cheikh Fall Serigne Touba amut ci àdduna. jege na màggal gi jegewul màggal gi bàyyi foos xataa dañuy dem liggéeyal Cheikh bi. Hmm. dañuy dem liggéeyal ko ñëwaat nekkaat ci suñu bopp. et puis loolu sax entraînement la. tugg fii dem fii yenu fii ñàkk a dallu fii jonkal fii yëkkati fii raxas fii loolu tëral la. Mm-hmm. ab domino la fa nekk ab domino sëgg si gii yooyu dafa garaaw xam nga liggéey sëñ bi de lépp ngi ci. micro bi am na jariñu. am na mm-hmm. jariñu am na entraînement ñun manqué woon dara Touba lépp ngi doon liggéey. <laughs> da ngay am njariñ da ngay am ak njariñu aw ñaan. parce que da ngay am entraînement yu baax. ci mm-hmm. personne may fa. ak Touba Ndar fa. loolu dafa leer. Euh, ku ne xam na ni combat bi yàgg na. metti na ñu ci bari sax ci amateur làmb yi dañu dem ba dañ leen a mujjee ñeewantal. Euh, ci jàppale wàllu jàppale. est-ce mm-hmm. jàppale bi bi war ci combat bi yaa ngi koy am wala yaa ngi dundee yaakaar parce que xam naa ne open press yeeg yu mel noonu dem yeeg dikk yi sax moyen moo koy def te yow daa mel ni goo sax pour def open press. non du question waajagoo damaa def. lu tax. non defuma. lu tax xaju fi ci financièrement wala xaju fi parce que yow yaa bëgg a concentré wu. waaw xaj xaju fi ci financièrement xaju fi parce que instant bi taluñu open press suñu bokkoon tal pour lamb wax ay affaire open press wala dara mais lamb ji lañ tal ñëw joxe def lu doy waar incha allah. Hmm. yàlla nag moom moom ndam yàlla ñu yàlla may ndam. Hmm. mais li la mën a wax mooy Dame Diop mi ngi waaj DG mi waaj. secrétaire général day jox liggéey mooy yor wàllum emploi bi. Mhm. Pape Modou Fall mooy secrétaire général. dana mhm. emploi joxe liggéey. ñi mhm. jox wàllum yor wàllum liggéey. wàllu d'emploi yi quoi waaw d'emploi ñoom ñoom ñoo bokk benn dëkk Diourbel. ministre Dame Diop. moo yor ministre. joxe liggéey joxe <laughs> emploi. merci ministre joxe liggéey waaw. Euh, Amadou Fall mooy directeur général. joxe liggéey euh, joxe liggéey. Euh, Sidi Diop aussi moom tamit mu ngi ciy xar naa ko tëwee ma xam nga bu mi ngi jàppale zone Diourbel yi bu baax ndeysaan ndeysaan waaw ñu ñu ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñu jàpp ci pour booy tamit waa Diourbel yi seen ñëw ak seen dem yëpp yomb ci barki Serigne Fall hmm. ak waa Géejawaay yi xam nga jamono jaxaay daaru jubo ñëpp bàyyiwuñ kenn Hmm. ba waa Baxdaad suma mbokk géwél yëpp ma leen di woo si combat bi ñu génn xam nga def nañ ko daan defee suñu borom defal ñu ndam. ci hmm. barki maam Cheikh Ibra. Hmm. waaw li a am daal mooy. lamb ji dina neex trop incha allah. ji dina neex mais damay ñëw tuuti. muy dama jékki-jékki ci contrat bi gis ay yeneen mbër yoo xam ne say naataangoo lañ ci làmb ne te yow ba léegi yaa ngi taxaw fi nga taxawoon. da ngay ñooñu tey lan moo tax bërewuñu contrat bi li ne ci sa contrat yow daa uteeg ñoom wala ñoom la neex bëriwuñu ak yow bu doon yow la nekkal sa place ban taxawaay nga ci taxaw. waaw bu doon man la te ji damay commencé ci promoteur bi ma ngi koy nuyu de passage. Hmm. Alain ak waa hmm. Rente Dakar yëpp. Pape hmm. Jumbo et tout ça. Jokalante gars yëpp di nuyu. maanaam tey ji nit am na fu ngeen di jaar wala teranga bu ngeen di seq. wala jikko bu la woon bu nga xamante ni. da ngay jël affaire këyit nga teg ko fee. Mhm. da ngay def ak moom affaire ngor ak doomu aadama. Mhm. man foofu laa toll ak waa Rente DKR. Mhm. leneen tamit bon yow la concerné. Hmm. mais mënu ma wax place doomu aadama bu nga xamante ni peut-être waroon na bëri ma koy nuyu de passage mobile moo tax ngay wax. Hmm. ma koy nuyu di ko ñaanal jàmm. mobile ak euh, ak kii euh, nu mu tudd Malick Ndiaye 37 fu. moom Malick na hmm, xaw ma na day sëlam buusit. non Malick <laughs> Ndiaye bëgg a sëlam boppam. non Malick Ndiaye dina bëri parce que moom Pape ay ay lañ. xam nga du seetaan Pape ci loolu noonu. xam nga may wax ne Alain ak ak kii. comment dire que mbër bi. Pape euh, mobile. Hmm. xam nga ñoo bokk lu nga xamante ni mënuñu ko séddoo. Hmm. pour man war nañ mën a waxtaan ba jéggalante am. est que waxtaan mun naa am ci contrat boo xam ne dañ ko dañ ko xaatim. waaw d'accord naa yow. tey jii dama dama ne la nit am na fu ngeen di toll dootu leen seq affaire kayit affaire doomu aadama affaire gor ay doom. Hmm. mobile nee na jii bu ñëwee visa am yàqu. te li ma xam ci Alain ak comportement ak intention bu ma am si jeune leader yi. Hmm. amul loolu amul ko intérêt. kon ñoom ñaar nañ waxtaan xam nga jàmm am seen diggante compréhension am seen seen nag boobaa moom mooy def liggéeyam moo fay nekk mais ñoom ñaar ñu bañ a réeroo seen biir. Hmm. Alain j'espère que bu mobile su waxtaanee ak Alain Alain dina ko comprendre parce que amul ko benn njariñ visa Alain visa mobile comment dire di yàqu. mais yow ci ci li mobile wax. bu demee. visa am bu ñëwee visa am dafa yàqu. Jimbo génn na démentir loolu nee na loolu amul parce que moom tukki na tukkeeti. xëy na ñi nekk ci wàllu tukki xam nañ ci dara. Mm-hmm. mais am na ci leneen loo xamante ni nee nañ signature contrat bi mujj bi ñu def. Mm-hmm. année nationale. Mm-hmm. mobile dañ ko convoqué ñëwul. est-ce loolu bu ko defee liy xewaat duñ jàpp ne Taïf mobile la. ah mën naa nekk parce nit ñëpp bokkuñu yem. Mm. bu fekkee tamit ne dañ ne loolu amul. Mm. bu boobaa tamit day daan ak ak. Jimbo nee na loolu amul moom dàq na ko. xaw ma hmm. day doon ak tooñ ci mobile hmm. bu fekkee loolu am na parce que damay wax sa parce que mobile su mbokk mbër hmm. bien vrai que yi ma am ak année awma ko ak mobile mais mobile su ma mbokk mbër la damay wax xam nga buñ nee tey jii euh, jumboo euh, loolu amul mobile da ngay da te nit da ngay moytu tooñ boo nekkee ci aw yoon. Mm-hmm. xam nga bu fekkee ne mën naa nekk mu ñëw jëm leen bëreel rek bu fekkee ne tamit loolu moo nekk ñu jéem a waxtaan seen biir compréhension am seen diggante ku nekk mën a nekk leneen mobile ñu jéem ñu jéem a xool neneen nu mobile bëree. Mm-hmm. voilà lu rafet daal. Mm-hmm. parce que lu rafet moo jar ñaan. làmb wéebi ëllëg mag jiiri mën a daje feneen. seq leneen boo xamante ni or làmb lay doon. bu ko làmb ñaawalee rek loolu rafet. Hmm. kon nañu nañu fexe nu mun naay see ci ñoom ñaar mobile mu moytu tooñ encore <coughs> moytu nga tooñ bu fekkee ne daal lii fi mën naa nekk nga ñëw. Hmm. Fatou ñu ngi koy ñaan ñu bëri nga def ko te yàlla tax ñëw bëri. remplir ce contrat. waaw am na solo am na solo keroog bi ñu demee ñu ñëwaat ci làmb ji tuuti bi ñu demee fële ca Mar Fafaxo. Hmm. Euh, open press ki nga xamante ne mooy sa adversaire Kalmandour. seetaan nga ko. waaw am na ay vidéo yu jot a gis de wax dëgg fa yàlla. am na foo ko gisee. waaw vidéo yi de xam nga comme ni ko gars yi di gisee rek gars yi moom si internet bi gars yi waa wasaare tas nañ koy toujours tout ça. Hmm. ak ñeneen ñi ak ñeneen ñi. Ndeye Mbacke moom yaakaar na dañ koo dàq fa mu ne fa mu nekkoon. <laughs> dàq na <laughs> ko. Maga Leewtoo ba léegi de. sama <laughs> yaakaar dañ koo dàq. dàq dàqaguñ ko la xam naa xam naa mu ngi ci yoon bi. waaw xam nga ñoom ñun ñëpp tas nañ ko gars yi gis nañ ko. Hmm. tawfeex la. Hmm. ko. bi nga gisee. lan ci jàng waaw jàngat en tant koo xamante ni mu ngi xool adversaire am. daf ma gën a boolewaat ci làmb ji rek. daf ma gën a boolewaat ci làmb ji. Hmm. ma tax ba tax ma gën a bokkaat ci làmb ji rek. cofuñu ko benn yoon te duñ ko mës a cof. dëkkam wane nañ ni dañu bëgg combat bi. Hmm. ba meeru dëkk ba sax. jóg na génne ñett bus may ko ko. jàppale bi macha allah. taxawaay bi macha allah. Hmm. loolu dafa tax mu gën ko ñaax ma jël ko teg ko micro mu jooy. ne li mu jooy lépp lépp lu mu metti metti metti metti dina metti sa kaw daal. Ah, waa dëggam ñëw ci jàmm te dama dama yaakaar déggoo li ma <laughs> nee na moom lu combat bi maanaam coono bi waa dëkkam daje yëpp lu mu metti metti mettit boobu dina ko teg sa kaw. ah man ah, de baax na. xamal naa la xamal naa la ñaar damay bañ leen di jot. xamal naa ñëw xamal naa la ñaar. wala xam nga xam gis nga ah. lënd bu jotee lënd. lënd boo garaaw boo jar xalaat defal naa ko dimanche xaw lu yàlla di def man xaw lu yàlla di def dimanche. te lënd bu jotee ak lu mu munti am man damay siggi waxtaan ak yow ndax doo ma jébbi. Hmm. yow doo ma jébbi bu lënd jotee di nga ñëw fii ma jàkkaarloo yow wax ak yow. xaw ma lu yàlla suñu borom di def dañuy ñaan yàlla may ñu bu neexee yàlla suñu borom dinañ gisee man ak yow. incha yàlla bu kenn faatu yàlla bu kenn am benn dog-dog yàlla bu am kenn benn gàkk-gàkk. amiin ci barke Cheikh Rafa ma ak yow dinañ jàkkaarloo waxtaan ak lu mu munti am doomu jébbi. mystique bi bari na trop ci combat ci yéen ñaar. mystique ñaar ñëpp. keroog bi nga ñëw arène nationale fala la ma fekk. Ah. moom it. moom it fekk fa ma fekk keroog. Euh, open press am fa la ma fekk mystique bi bari na trop yéen ñaar combat bi da ngeen a jàpp mystique moo koy gañ. mystique. yow yaa ci naa la nga wax benn gain fii naan ko ma joxee un ma jëlal la ko. waaw yéen da ngeen a mystique dem ndax loolu la ñëpp mel. ah waaw loolu ah, la <laughs> ci làmb la bokk mais am na ci njariñ parce que dañ ko cay fekk dañ koy def. Mm-hmm. am na baaxu maamam ci biir. Hmm. mais entraînement bi dool ji jom ji fit ji bëri bi. Hmm. kenn ëpp ko si njëriñ. waaw te ñu ngi ci bu baax a baax a baax. boo ma doon xaymaal li ngi ci jot a def ci ci xaalis ci wàllu mystique sarax yeeg ñaan lu yeeg yëpp yëpp boo ma ko doon tënkal à peu ci ñaata lay tool ak dëkk bi lu muy metti metti metti ma wax la leen. Hmm. premier combat bi. à part ma nekkal suma staff. sama grand frère Balla. sama grand frère Ablaye Ndiaye. Mm-hmm. ak Viekane mi sama goro ak sama goro mbay job ak suma ay jigéen. Mm-hmm. amul nit bu yëkkati xaalis ne ma maa la ko maye à part booy Mbaye Diop nga xam sama jarbaat la en fait sama la sama rakku jarbaat la. autorité kon da nga bëgg autorité géej gisoo kenn amul kenn ku ma si jàppale woon ci xaalis amul. te dama ko géré woon naa ñi doon wax ñëpp parce que Serapal ku nekk nag sa métier moom boo ko bëggee toll ak nitu jàmm da nga koy koy yegg. Mm-hmm. mais ñëpp fépp la météo mais man amul ku yëkkati woon dërëm ne maa ko jàppale burul ci suma biir sama fan booy mbay job ma lay wax nekk Mauritanie maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal suñu borom defal mm-hmm. bu bien la booy bu baax la kooku mënut a génn sama biir mënut a génn sumay saf damay dugg da koy yëg damay waxtaan ak moom mm-hmm. daf ma def comme waxuma la goro sax wala waxuma la nijaay comme nit bu mu bokkal day waxtaan ak man waaw ak samay grand frère Balla Faye ñi ma nekkal daal nga xamante ni man ak ñoom lu yendu ci man dina fanaan ci ñoom. Hmm. ñun ñooñu ñoo doon def combat bi à ñooñu amul keneen ko ci def. Hmm. mais Dame Diop recevoir nañu nee na ci jàpp. aussi moom tamit combat bi mayoon na booy wax dëgg yàlla mayoon na booy ay kaar. Hmm. Dame Diop jour bi combat bi yàqoo. la affaire yi mujj arrêté quoi. mais man sama préparation amul nit bu ci duggoon budul ñu mën limal ni wàllu mystique bi. laa bëgg nga ñëw ci di nga ci xayma. ci xaalis li nga ci def ñaata la. moom laa wax noonu sax nee na ñooñu. mat na mat na un million. bàyyi ma ci xel dama dëgg yàlla ndax man ñi may ñaanal lañ may ñaanal te yàlla tax. mais di nga génnee sarax. dinaa génne di nga génne sarax di nga paas di kii. mais xam nga boo fi bëggee nekk di xayma li daa mel ni nag sawaay dafa xeeb Calme Ndour. saraxu 1500 ah. sax nangoo ko génnee ndax moom. Ah, di sama xam naa li ci man su ma génnee soow ak kii rek baax na. <laughs> baax la ci def yëpp. seen ko sëlëm Euh, Eumeu Sène mi nga tuddee sa bopp. Euh, dañu ko dégg ci benn sortie mm-hmm. yaakaar naa suma ma juumul li la mu ne ñu laaj ko combat Eumeu Calme euh, Ndour Eumeu Sène mu ne moom bu ko promoteur bi teeloon laaj combat boobu du am parce que xamul sax fan la war a taxawee. Mm-hmm. kii turandoom la def nañ lu nekk kee tamit ikiri Pikine la nekk te booy ñaaw booyam la bi nga gisee loolu lan nga ci lan nga ci wax. dañ koy nangu li mu wax bu baax a baax parce que man mii boo ma seen doon bëri Balla Gaye tey jii Balla lay faral. Hmm. lu tax. non affaire géejawaay la ak affaire suma grand tey jii loolu mu dëgg la du xam fu muy taxawee parce que la ak nit bu nga xamante ni dalaa tuddee boppam dafa fort. Hmm. waaw mais c'est normal mu mu am ji fi jaaxal. ci biir tuddee bi amul leneen lu ngeen doon séq lu dul tuddee sa bopp rek. non non pourtant maa ngi am seen bi ma jógee écrit il paraît que sax yaakaar naa ñaari noo xam ñetti lañ fi déggante te man woo téléphone am. Hmm. mais à part ça jot man mii aussi amu jot. seen diggante amul benn ñakas ñagas fii dañuy siyaarante mu jàll ma jàll amuñu benn ñagas ñagas. boo amee combat di nga ko jàppale ci wàllu contact. non wala ñaan wala dem këram. non non wax dëgg yàlla bu ma fa jógee ba loolu nga am combat mu jël téléphone am wala. man mu am combat mu téléphone. Hmm. non non loolu moom amul mais nag loolu moom du lu garaaw mu amul. diggante est-ce que ni la rataxul mais tamit boo nee rataxul wax da nga ko wax waaye boo tamit ratax ratax neexul tamit. non na jot mu jot ba munoo jël sa téléphone wo sa poulain bi la tuddee sa bopp ne grand. defal nii taxawel nii. maa lay yéene ndax jamono ju xat ji Covid beeg euh, confinement bi ñàkk xaalis yi ci dëkk bi gars yi di wut na. sa diggante yaag Boursine ci Covid la fekk. waaw Boursine. Ah. après noonu net ah. ah, kon avant Covid la. avant Covid boobu est-ce que combat. combat moo tax ma ne la jot moo amul. ah yow bu nga ni beneen problème. kon gaa yi dégg daaj rek. waaw laal la lees waxul quoi. non amul li ñuy waxul <laughs> ah, dara amu fa. Ah, amuñu benn problème maa ngi ko de passage di ko ak soxnaam. xam nga amuñu benn problème benn problème amu ko man ñaanuma yàlla am ak quoi que soit nit bu nekk ci làmb. xam nga ñii ñii sax ni yàlla lañu yàlla suñu borom terale leneen ba ñekk ci leneen. kër ci hmm. kër ci. Hmm. mais amuma ak kenn benn problème ci làmb. awuma ak benn nit xaar ma yàlla taluma loolu sax wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. Euh, maa ngi xool lu may avancer suma àdduna ak lu may satisfaire suma njaboot. Mm-hmm. mais li ci des moom wax dëgg yàlla. da leen sonal bis ba jot na Kalmu Ndour féete di joor ama seen féete càmmoñ at bi nee na prip toj nan noo fas yéene jëflante ak moom. waaw comme ñu ko waxal parce que combat bi dañuy teg combat bi teg li ngay wax. comme suñu yeneen combat yi rek arbitre danaan prip. Mm-hmm. ñu li may wax ne suñu borom daf laa may. fit jom ak ñambaar lépp nga koy mottali sa bopp yàlla suñu borom nag moo téye sa nasu gi mënuñu suñu mënee rey ci làmb ji nañ des ba mu xóot mu ñu que seerafal làmb mi ma yaakaar làmb ji kenn du ma fa jéppi kenn ndax lépp lu fa góor yàlla def danaa ko def li fa suñu borom war a def nag moom noppi na ci bu yàgg mais lépp li góor yàlla di def ci joŋante ah ak xare bu soobee yàlla dinaa ko fa def mais suñu borom li mu war a def noppi na ci bu yàgg. daa mel ni doo xeex de. man. Hmm. ndax man am na làmb ju ma xeexu. yaa Calme Ndour bi ñeme ngaa xeex. Calme la. Kayaaf yi laam. Ñikaay laam. lu mu doon. ba nii ma xeex ak moom. nee na loxo yi jot na. tànk bi deux pieds yëpp day. bo loxo yi jot loxo yi jubu ko gën. te ñeme ko. ah kon loxoom moom jubul. déet wax ma la loolu de. yow yaa ne nee na loxo yi moom loxo yi jot na. ma ne loxo yi jub a ko gën. waaw yow yaa yor jub moom loxo. man samay samay loxo xaw ma daa gàtt xaw ma daa jub. moom bu dóoree day gëmm kon ci kaw lay sànni. xaw ma fu yow mi yaa ngi décortiquer Kalma Ndour nag a ngi koy décortiquer. <laughs> ah mais yow non mais dañuy waxtaan mais. mais yow li ngay wax mooy Kalma xanaa. Kalma mais jili yaa ngi décortiquer ko décortiquer. yow yaa ñaaray laale. yaa yaa <laughs> yaa ah, ay ca kon ñu dem <laughs> ah. ñu dem. yaa ngi ay faayam de di nga xeex. non ñun moom dañuy def ñëw pour le bëri doo la ñu wax dañuy ñëw xeex bëri def lépp. man nag su ma sañoon da ngeen di xeex. parce que li ngeen waxante yéen ñaar combat bi ni mu yàggee amateurs yi dem nañ sax ba le dix sax ñu ngi dute ba xam dina am du am da ngeen leen war a wax combat bi lu muy yàgg yàgg yàgg xamoon ngeen ni day neex ngeen xeex xeex bu sax bu neex bëre bëre bu rëy que le meilleur gagne. ji yow. Mm-hmm. histoire waaw. non histoire baaxul. dañ leen a pour ngeen xeex loolu histoire la. mais ci xeex waaw xaar bu ñëw ah. na prix. xaalisam bi jël ah, teg du ay jàppante rek daan de. est-ce que daa bëgg ngeen xeex xamul wax. Ah. yéen ñaar seen combat yàlla ngeen dóor te bët tëdd ku tëdd. mais yàlla nii la <laughs> loolu la bëgg. moom pour moom mu nee na combat mu nee na combat warul jeex kenn kenn waru si daan warul jeex. ma ko man loolu arrangé kon damay tir bi ma amoon ci làmb dama koy ñàkk. Hmm. Ah, doo taxaw ak booy bi quoi. dee doxuma la loolu ay waxal bisimilah. Xaadim Samb nee na waaw. <laughs> booy booy wax ak nit. Uh-huh. te bëgg coow li bañ a a jeex. Uh-huh. da nga koy sosal. da nga koy sosal waaw moytuwul sa bopp bala maa wax. non man bu doon man bu doon maa sosal ndax man sama laam bi dem sama poos. <laughs> dëkk nga ci caméra bi de waaye bu nu war ñu ñëw de. Uh-huh. ñu bu nu woo mu ah, ah, a wax wax de <laughs> fu ma a dem <laughs> xam nga. ndeysaan li ma la a xamal daal mooy. Mm-hmm. combat bu neex lay doon incha te dañuy ñaan yàlla may ñu ci ndam. Mm-hmm. may wax benn message boo xamante ni waa Diourbel yëpp yëpp yëpp. maa mhm. ngi leen di woo ci combat bi Diourbel bàyyiwuma kenn. Ah. Mhm. Bawal gépp Diourbel gépp bàyyiwuma kenn surtout waa Kër Cheikh Raval. Mhm. grand Etienne Ngom maa koy woo bu baax si combat bi. Père Etienne maa lay siyaar. waaw ku baax. ku nangoo sonn si ñun bëri Diourbel ku ñeme dëgg. sëñ tonton. non man ngay xool naa fële. man. non ci dëggoom. ak ci xam nga ci dëggoom. ak ñu ñëwee sonn si nit. Mhm. moo tax ma wax loolu nit ku baax la. dëgg la nit ku baax la grand bu bien la wax dëgg fa yàlla maa ngi koy ñaanal bu baax suñu borom defar ko tawfeex ak teysir. Mhm. xam nga yàlla suñu borom teg loxo njabootam. amiin yaa rabbal aalamiin. ak grand Robert aussi. Mhm. di woo mbëri Jurbel yëpp bàyyiwuma kenn. Tanor Baye Mbañoon de Hercule. waa Mbudaay waa. ñëpp waa Touba Njaareem bàyyuma kenn. Mm-hmm. waaye mburu Jurbel yëpp maa leen di woo wax leen ñu jàpp ci bu baax a ba Mbàkke ah mburu Mbàkke yi sax. Mm-hmm. parce que lépp Jurbel la mm-hmm. que lépp Jurbel la. xam nga maa ngi woo waa Sambe ak waa Xojil bu baax baax ñu jàpp ci bu baax a baax a baax a baax. Sambe école yëpp nga xam ne ñun bon ñoo bokk Jurbel daal. waaw yàlla suñu borom rafetal lépp. amiin lépp di jàmm ju bari. te a gi ñu génn suñu borom def ñu teewee ko ay ati ati amiin yaa rabbal aalamiin ndax day événement bu mag ci murit mm-hmm, mm-hmm. du ma ne dootuma wax murit sax dama naan day événement bu mag Sénégal voilà mm-hmm. ci biir àdduna bi yëpp sax ndax loo xamante ne dem nañ ba nasaraan ñi dañuy dagg bee ñëw di ko fekk si pour teewe si ati bu ne buñ ci defee suñu juróom wala suñu ñaar fukk amiin yaa rabbal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di nuyuwaat borom kër gi ma fekk fii. Hmm. Père Ousmane Kane ma koy ñaanal jàmm bu baax moom tamit. Hmm. suñu monsieur le maire yi ñu leen di siyaar ñoom ñëpp. Hmm. monsieur le maire Baye Seye ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom ko àjjana. di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu waa Mbaar mi waa Penc mi. ndeysaan di ñu leen di siyaar bu baax a baax di woo ñëpp waa Géejawaay yëpp ñu ngi leen di woo waa place Boga Ndigal gars ngeen di wax ne xam nga nañ ñëw deflantaan def ñoom ñëpp ñu mm-hmm. génnaat. Mm-hmm. dafa am benn cër bu nga xamante ni dama ko amoon géejawaay. dama bëgg bu baax mu génnaat ci combat bi. na ko amoon. waaw cër boobu daa dem. cër bu jógee géejawaay dem Pikine moo ko mm-hmm. mais géejawaay fii benn mbër moo feppoon supporter muy Balla Gaye dem. rond-point bi nga waxoon ne ay super dafa daan taxaw mu daan parce que ay super super ñoo fa daan taxaw bu ma mm-hmm. may nuyu bébé guy gi mi ngi ñu soog a yegg si. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm te may ko ndam lu sedd guy ci barke Cheikh mm-hmm. nga ak ñu mu àndal ñëpp. nga di leen siyaar bu baax a baax a baax. sama mbokku njaago yi. waa kii Birame. <laughs> da ngay woote wàllu da ngay woote wàllu da ngay yaa koy <laughs> ah yaa ngi woote wàllu awul problème ma li ma jaaxal bantiloo bi mu ngi ñuy door mais yaa ngi ñaq rek waaw lii lépp liggéeyu kii bi rek Magal Touba bi hmm. Magal bi ak formation FILS xam nga association FILS ak waa Fit Protection. Hmm. Grand Matar ñu koy tout cas daal lu mën a xew mooy yaa ngi ci forme. ma leen di jaajëfal bu baax di Grand Matar. Hmm. ak chef chef euh, euh, chef Matar chef ñu ngi koy siyaar chef Babacar ak Met Gueye chef Ba chef Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ak waa Zeyzen. Hmm. mais nuyu aussi sama benn grand bu nekk Zeyzen ñu wax Aziz mais respect chef maa lay siyaar. di leen ñaan jàmm di ko ñaan suñu bopp bu baax a baax xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi ñaan yàlla suñu borom jours yi waa Géejawaay yëpp am ndam incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ndeysaan waaw di ñaanal bébé guy bu baax yàlla suñu borom defal ko ndam bu sedd guy. Mhm. barke Cheikh Ibra. laajëf waaw di wax ne daal jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm saa su ne. Mhm. waaw lu jàmm amul bokkuma. ndeysaan rek moo ñu mhm. jàmm rek lañ soxla. sax bu fa jàmm nattu am ñun. nen nañ nekk leneen. Hmm. jàmm rek hmm. jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm. yal na yàlla def jàmm lépp ba mu des ci digg géew bi moom jàmm mënu faa. faw <laughs> faw ngeen jàmmaarloo la Eumeu Sène Junior Kalbu Ndour dañ koy xaar mbokk yi noonu la demee tey moo waral tey ñu ñëw fii ci géej waay seet si ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Junior gannaaw ba ñu demee fee ca Mar Fafa xo gis Kalbu open press bi mu def. ñu ne dañuy dem ci adversaire am. sama mooy loolu. sama soxna bëgg a takk ñaareel. li tax nga bàyyi ba may tàggatoo nga ni da da ngay sa soxla. loolu <laughs> oh, ñaareel gi sa xel. ji li moo ñëw bëgg a <laughs> a tas sama sëy <laughs> ñaareel gi sa de. waaw yaa jaara <laughs> di leen jox dig daje sama gars yi maa ngi lay ziar bu baax di la <laughs> ak njaboot gi yëpp la ñaanal jàmm ak ñaareel <laughs> non non doo takk ñaareel waxuma mala du ma takk ñaareel wala moom ok di leen jaajëfal bu a ah, di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ak ñaareel soo man dëgmalee xare bu la ñaanee safaan safaan dalay dal bu ma indil benn problème takku ma ñaareel waxtu wii waaw sama jabar maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm di la wax ne bisou hmm. je t'aime comme il le faut hmm. waaw saa su a je t'aime jaajëf sama gars yi I love you